alalu musique mënul a tabax jàkka mënul a dem màkk mënul jokk mbokk mënul def dara lu baax looy jële yàlla alalu musique mënu ko dajale ay góor ak jigéen ñuy pàkkat ñi di fecc ka wëy pare nga naan yaa ngi def social ñu naan diw moom daa social daa mën a dimbale wante dimbale waate sallallahu alayhi wa sallam nee na sa social ak sa dimbale waate yëpp boo ca dee tuuboo ko yàlla dana rëq sa ndigg dugal la safaraw jahannam lii est-ce que na ci seen bopp yi pour ñu wax leen ko wala dañ leen di bàyyi rek naan ne ba Youssou Ndour di commencé way dafa way ay way dafa way ay way su ma ci amon saaku xaalis ci way tabaski way tabaski yooyu yëpp intéressé wu ne intéressé wu ko ne rek ci mooy dabbe li mu daan woy man dama koy déglu profondément waaw parce que ku bëgg musique la waaw mu koy déglu tout le temps parce que dégg ci xam dégg ci li yàlla dogal yàlla def nag Youssou Ndour woy fi woy yu bëre mais mu nettali woon fii ci Tivaouane booba kat Youssou Ndour bi ngi toog ma ni man day déglu naa tabaski déglu naa xaalis déglu naa leneen ak leneen waaye duma gënoon a daaneel nag daw sama yaram mooy dabe mais dabe kat dafa dul wayu ordinaire mais bi mu ko déggee rek laa xam ni lii du wayu ordinaire yàlla def Demba Lamine ñëw ma laaj ko ko yow mi xam wayu kaw la luy demee mënu ko demee day sunu way la waaye duñ ko way fu ne de ma topp Demba Lamine pour mu leeralal ma ko. ñi nga xam ni tey ñoom lañu woowee ay kilifa diine. ay xalif généraux ñoom ñoo ne ñooy kilifa diine yi diine yi ñoom ñoo ko yilif bokk ci luñ koy waxee ñi nga xam ni tey ñoo waroon yedd caaxaankat yi ñoo waroon leeral caaxaan yedd caaxaankat yi xamale ni caaxaankat yi lii ñu def baaxul tey ñooñu ñooy taxaw tey di tagg caaxaankat yi di tagg Youssou Ndour ba di tudd seeni morso naan morsom bi moo ma neex jëng naa leneen ak leneen waaye duma gënoon a daaneel na daw sama yaram mooy dabe mais dabbekat dafa dul wayu ordinaire mais bi mu ko déggee rek xam ni lii du wayu mbokk yi ana ban nitu diine ana ban nitu diine ngeen gis muy cautionné musique ban nitu diine laalo ngeen gis muy cautionné musique mu da imaam Shaafi wax ci waxam boobu imaam Malik wax lu mel noonu mu ne du daje ci xolu jullit bëgg musique ak bëgg alxuraan wala nga ne fonk musique ak fonk alxuraan xool képp kuy musique rek du fonk alxuraan en général temps muy jël ko def ci musique temps boobu du ko def ci alquranul karim aay borom subhanahu wa taala wa min annaasi man yashtari lahu alhadith li yudilla bihi an sabili am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy wecc ay kàddu caaxaan ngir réeral ci nit ñi ngir réeral nit ñi ci yoon bu jub bi ci yoonu yàlla bi saxaaba yi ëpp firee ko ne loolu moom mooy musique saxaaba yi ñu bëri ci saxaaba yi firi na loolu moom mooy musique même bu dul loolu sax nañu bàyyi loolu ban nitu diine la ñu gis tey muy dooleel ay caaxaan ba di dooleel musicien toog di tagg musicien ci koo xamante ni yow ne nga kilifa diine la yaa fi nekkal diine yaa fi toogal diine yu Ndour xale buy ndaw buy doog a judd sax xam nañu lu muy def baaxul xam na ni caaxaankat la xam na ni fecc ak woy fecc ak woy moom mooy méccam di woo nit ñi ci fecc di woo nit ñi ci woy di woon nit ñi ci caaxaan te kooku mu toog nga waroon ko yedd nga waroon xamal nit ñi kii lu muy def baaxul kii moytu leen ko kii yoon bu mu jël baaxul mais yow yaay toog di encourager nit ñi ci kooku di taggu kooku mbokk yi ba réew la nekk te boo waxee ñu ne dangay ngay diingat da ngaa contre sëriñ si da nangam ak nangam léegi daal ñoom dañ leen di bàyyi ñu def leen neex léegi ñoom dañuy toog daal def Sénégal mooy dëkk ba dafa bari ay naafiq bëri ay hypocrite duñu waxante dëgg man de damay bàyyi bi tontu boppam il est majeur et vacciné. yàlla def nag yu si way fi way yu bëri mais mu lu woon fii ci tuwaawam booba kat yu si noonu bi nga toog man ni man tabaski dégg naa xaalis dégg ak leneen. waaye li ma gënoon a daaneel nag def sama yaram mooy dagg aha ñoo gis si vidéo daw sama yaram dégg ngeen ah xalif général bi nee na dabbe bu Youssou Ndour moo koy daaneel nee moo koy faj paa bi wax na fi ay son yoo xam ne sax man xaw ma ko na tudd na lan tabaski si benn tabaski xaalis alalu musique mënul tabax jàkk mënul a dem mënul jokk mbokk mënul def dara lu baax looy jële yàlla alalu musique munu ko dajale ay góor ak jigéen ñuy pàkkat ñi di fecc ka way pare nga naan yaa ngi def social ñu naan diw moom daa social daa mën a dimbale wante dimbale waate sallallahu alayhi wa nee na sa social ak sa dimbale waate yëpp boo ca dee tuuboo ko yàlla dana rëq sa ndigg dugal la safaraw jahannam lii est-ce que leer na ci seen bopp yi pour ñu wax leen ko wala dañ leen di bàyyi rek naan way ne ba Youssou Ndour di commencé way way dafa wai ay wai khalis suma ci amon saku khalis neex suma ci amon saku way tabaski way tabaski yoy yeb interessé wu yoy yeb ne interessé wu ko ben ma ci toucher ne ben rek moko ci toucher moy dabbe moy dabbe